yàlla na fi yàgg teew di ñaanal ñëpp jàmm di jël nuyoo bi di ko nuyoo ñëpp rek ñëpp pour mu gàtt parce que boo lu ñëw mën nga jóg di naa ñëpp ziar mhm. euh, balaa ñuy xuus di jëm ci benn question damay wax Habiba lan ñu ko war a tey parce que gars yi yaa ngi leen tiital non ku ko gis am na yaakaar dañuy suñu gaynde am na yaakaar dañoo bëgg dóor am na yaakaar yow ko dof ku nekk xam nga doomu aadama ku nekk xelam su muy dem mm-hmm. nga yaakaar bës nga yaakaar yëf dof nga yaakaar bëgg nit la mën mm-hmm. nga xalaat loolu mm-hmm. mais li ma àndal su ne ma woon see yére sax ko li ma solo ni ñoom ñoo ko bëggee ma defee nii mas naa fee def benn émission sol benn yére bu am xaalis ñoom ñoo ko bëggee woon noonu ma defee ko nii habillement bi tey ñoo ma defee ko nii. Mhm. te boo gisee lii nii daa am lu ko waral. Mhm. Euh, léegi nag loolu ko waral bu ñu sañoon nga daal di koy leeral xam nga vidéo mhm. fépp lay doon. nga yaay faal nekkul yaay faal Dakar yaay wala Sénégal international. koo yaakaar ne xamul yaay faal xam na yaay faal. may wax benn affaire mooy ñenn ñi si ñenn sëriñ si laay nañ bàyyi comme làmb di am ñëwagul ñuy wax di waat di dugal donte mën nga xam sax mais la nga comme li def man li may def si làmb saa kees laa ko njëkk a defee man sàmm damay def vidéo waaye du ko dugal su ma defee woon tey la samedi man su ma koy def bu ceg laa koy def ñu xam ne li ma def nii def ma ko ay trucage def ay ci mbedd bi laa koy defee ma ne ko bu combat jeexee nga xam ne jeex na dama koy dugal am naa si parce que tey mën nga def vidéo nga gis dara nga wax ko sax nit taf la saaga la avant combat bi nii si bofee xam nga nit waajal mbërëm ay at di ko di def def sport di entraîner def lu ne am yaakaar nga taxaw na ko dem day daal dèjà dëgg nga ay moral yow humilier nga ko daal moom laa xam ne waxee mm-hmm. mais da ngay bàyyi yàlla am na surprise mm-hmm. loolu sax moo ko nga xam ne ni yàlla moo mm-hmm. ko ne ko après ak keneen ak keneen lu si internet bari man su waxoon ñëpp xam na ne combat bi jeex a réew Sénégal daf ma woo téléphone mu ne ma yaay faal kan mooy daan bu na ko woon ma def ko mairie bi ñëpp mm-hmm. moo koy daan Mor Saliou moo ma am si kanamam. Mm-hmm. Mor Saliou na émission bi mm-hmm. am na 6 mois presque. émission boo boo tapee yaay faal dañ ko gis. la ko takk du koy takk day nekk laatukaat en te koy wax yàlla laa de six ba pare ñu ngi ko man sama seet lu tax ñu ne da nga jóg kii mu mu loolu bi ma koy def boo seetloo sama téléphone sax da doon woote man xam nga lan laa taloon. man am naa fulla ak fayda bu toll ku ma waxul yaakaar ñaanal ma du la ñaanal ku ma waxul yaakaar seetaan ma du la seetaan. fulla la am bu bokkoon day ak bàyyi nga moom a nga teggi ma dem feneen du ma la man yàlla moo def ci man loolu di noonu mm-hmm. toog naa ay fan man liggéey xaw ma kañ laa a toog sama néeg bi seet client yi ma ama bàyyi xaar a visa am ndam. Mm-hmm. man ci loolu laa doon man yaay fa barki Serigne Sarr. Mm-hmm. Euh, saa yu bëri ma jox ko lekk mais kër gi ko amul ay millions yu bari doo ko laal te diir ma xala woon bii borom doole koy génnee sama kër mais moom saa yu bëri ma jox ko am dama ko jox daf ma gëm xale laa jigéen laa su ko neexoon ci góor ñi laay mhm. su ma yeboon ku waxal yàlla yow nii ba ci yow mhm. bu yaay fal commencé di ñaanal lañ ko gën a xamal waxal yàlla yi Ziza bu ñëwoon ci làmb ji taxaw zëm léewaatawul bëriwul sax day daan loolu man maa ko assuré ma ko yóbbu wax ko barki salaatul faate combat bi ba tey teguma ko ba seetaanu ma seetaan laaja sàmba dama kaa wax sàmba Ziza daan na wala lu daan xooluma ko xamal la laa doon sama liggéey xam nga lan moo jafe gëm doomu aadama sénégalais yi xam nga kan lañ gëm dof yi leen di ne si internet bi wax lii wax laa dangay seetlu benn mbir yaay Fall mosuñu koo vaaxe ndax lu muy wax da koy maîtriser daf koy xam ñaata at maa ngi ci média ñaata at. ñu ma mag foofu nekk si lu nga à chaque fois du ma saboote benn sëriñ parce que ku ne la nga xam ba ne yow yaa xam yaa ko xam. mais man am na droit ne man yaay Fall li may def dama ko dama ko xam te dama ko mën. Mhm. leneen la keneen xam nag loolu yow yaa xam. Mm-hmm. parce que ku xeeb xam-xamu jàmbur da nga sa bos. Mm-hmm. yàlla da ngaa may may may na. Mm-hmm. donte nag liggéey du ñàkk ñoo xamante ni mënuñu dara bokk ca di salté loolu ba ci waaye bëree lépp a seen dina amul sëriñ Sénégal am na sëriñ yu mën barki alxuraan li may waat bu dul dëgg yàlla bu ma fi yenn punkal bi nga xamante ni moom la ñëpp yaakaar sax ñu daw di ko wëri lu mu def tey bu ma xëyee fajar dañ ma koy wan lambi Modou Modou ak Ama Baldé bi man ki ma doon ñaanal Pikine la dëkk waaye moom moo ñëw ma koy ñaanal Ama boo jëloon vidéo nga wan ko naka ndax xam nga yaay Fall danaan waaw muy mbër beeg muy waykat bi ñëpp a ma xam xam ma ñëw moo fi ne ak xam ma bañ ñëw ak ba pare di dute sama mbir ak insister man ku dute sama mbir wala nga insister yaay Fall mën na wala xam na barke alxuraan ma du ma te sama loxo bi du ma ko yëkkati muy jub ñetti at laa feebar sama maam bu ne la woon suba ngay dee bu yeboo nga dagg sa sàngaay te xam ne dangay dee man xale laa li ma wax chaque jour man dama naa man xale laa mhm. su ma neexoon ma dem liggéey ji leneen porte yëpp am naa bu dee xaas am na kon mënoon naa continuer ma toog sama xaas ba liggéey sëriñ mais lu ma yàlla nag ko moom mën ko maîtriser ko xam mhm. li may wax si réew mi benn sëriñ lu ko wax ma répété waat dama wax ci bëri xam nga tey Modou Lo nu mu daanee Ama Baldé nii sax rafet na ndax gàllaaj moo tax sax Ama ñu daan ko daan bi a ñaaw bi la ko ndoroo ma wax leen loolu tey mhm. buñ bëriwaatoon ci géew sa da koy daan mais am na Modou Lo ñëwee tout clip maanaam solowul dara deful dara dara mu def te ci gën a doy waar ci biir combat ci biir euh, stade la la dañuy faral di wax loolu mu ngemb faar mhm. gis nga nit gis nga

billaahi wallaahi taalaahi Ama Baldé fu ko Modou Lo muur bu ko dindiwul pour mu amati combat bu normal Modou Lo na dem dindi Ama Baldé fi mu ko muur lu leer laa lay bu doon mbedd ak bu tasee Modou Modou Lo est-ce ko su ko dóoree da kay dóor ba mu bëgg a dee lu leer laa man a chaque fois dama naan man su may wax dama waxee far damay waxee baatin mm-hmm. ak gis-gis mun loo sëriñ bi koy ñaanal yor kurus ku mag kilifa la nag kooku lu mu lay jox sunguf ak reen sa du bari moo gën a garab xam nga nit yóbbu nit ba Europe liggéey ko barki alxuraan bi ma koy toj damaa yëkkati deux millions fii sama saal ba jox ko deux millions na ko demal ma Europe ba tojal ma liggéey boobu billaahi wallaahi taala liggéey dañ yóbbu fu sori jël course werd la téye la werd moo gën a garaaw yenn saa yi damay ñaanal nit fii te du ko jox dara fii laa koy doon ñaanal ama dina jàmbat métitu bopp waaw ama bi muy génn këram sax moom nekkul dafa mel dañ ko xabtal ba xabtal ba moom xamut ama gisul xam nga mbër bu daanoo nag lu mu wax dañ ñaan waxu mbër bu daanoo mm-hmm. mais ko nit bu concentré woo dina mën a bëri normal mais Moodu moo ko gënoon a xam ne bu ñëwee day daan Ama Baldé gis nga soo gisee may wax ko naan Moodu day jaxabal Ama xam nga Ama bale moom wot Modou Lô mm-hmm. te Modou Lô bu dugalutoon tànkam bi mën na daanu parce que dara desatul foofu mu déggee ñu naan ma ne jaxabal nag dama gisoon Moodu ni muy lonkee Ama Baldé tànkam bi man dama ko gisoon mm-hmm. kon mën nga gis mbir ba ci benn instant mu sama man de sama bos ko sànq boo sokkee moom mais man dama gis mais ci combat bi dafa bëri ñun ay seetkat yu bëri yoo xam ne waar nañ wax nañ ay affaire yu fóot ci benn langage foofu nag Selbé Ndom tamit am na lu mu révélé ba ci benn instant mu changé waat. waaw parce que li ñuy wax dañ ko maîtriser moom man dama ne Samba barke alxuraan moo taxaw mu loree daal lu mënti am mu loree daal loolu moom yàlla moo ko yàlla nag du ma man du ma kañu du ma baax du nam yàlla moom ma man di ma wan muy gis di wax dafa réew mi bi li muy tar tar tar bu ma ko réglé wu du réglé man maa la wax damaa toog sama ruq nag toog sama koy dal li ba quatre heures du la ñuy gaare du ma leen wax parce que nit booy liggéey daan def dara jaaxaloo ma ku ne ñëw na fii mm-hmm. nañ ñu géewal ñu sëriñ si ñu natt ko ne li nga man ñu xool mm-hmm. man xale laa de ku gëm man lu ma sax ci man du ma ne kenn gëmu ku gëm baax na ku ma gëmul loolu sa fexe ndax am na ñoo xam ne gëmuñu sax yàlla ñu leen bind mm-hmm. ku gëmul yàlla noo gëm nit am na ñoo xam ne naa boo yaay faal jugal fii xamoo dara mm-hmm. am na ñoo xam ne naa yaay faal yaa mën faal man may taal live di live ni di wax nit ki te lu ma la waaw nga doo wax déet seeta gën a garaaw te dama lay seetal di la wax lii am lii am du ma la wax ku gàtt gaa ku bula gaa ku orange bi dama lay wax lu leer nañ mm-hmm. la ma cité woon te Mor Saloum Dakar Buzz mm-hmm. ko ñépp dem xool bu dee wax rek nit di gis booboo gën a garaaw ñaata personne laa cité ñaata personne laa cité wax leen mm-hmm. ba ci waale ba ma naan ginaar yi ni dugal këram lu nit musul wax buñ ko jël am naa ko te rek lan gis Sidi Diop ba ko jigéen di yàqal ma wax lu mat 6 mois man leen jigéen dina génn def loo xamante ni wax dara du si am te mooy boo yàgg na kaaw man soxla woo ma man mosoo leen a dégg ma def interview woo leen ñaanu ma oto ñaanu ma kër waaye ku ma ko jox dama koy jël mais ñaanu ma sama liggéey nag lu ma may dama koy jël mm-hmm. mais Selbé mag la mënoon ba daan gis mais affaire mooy toll foo xam ne day dem man sax maam bi mu naaxee da daan dugg salle de bain bi naa ma kaay xool naa ni gileem yaa ngi nii mën ko jugal bi mën a dugg xamoo dara gisatoo da ngay dem foo toll toll foo xam ne dootoo gisee affaire yi ñuy affaire yi xale lañ bëgg xale ku mel ni yaay faal ñoom lañ bëgg xale bu ndaw léegi say digg nañ kooku lañ soxla dañ lay wuyu nangul la loo biis dina war mm-hmm. mais boo nekkee maam moom xam nga ne tey jii nii xale yi ku leen doon may salle de bain jëkkër dañuy bañ dañuy bañ tey ku leen ne kaay leen yaafaar nob leen dañuy nam ah jinne rab noonu lañ la dañoo bëgg xale bëgguñu kenn ku kii kon daal yow say gis dañoo ànd non dañ maa bëgg di nature man jinne ak rab yi ma bëgg ak jinne jàmbur sax ba ñëw fii nii sax buñ ma gisee ñoom dañ may bëgg loolu yàlla ko rek man loolu moo ko maag ay sëriñ yooyu simb ngay demal ni sëñ daan ay toogal ak ay jugal di di yuuxu di simb noonu kii man dama mais temps yi seet bi Mara ya sekk ci loxo ndax boo xoolee li nga xam ne mooy génn ko bien nekk man du ma tontu sa li ñu junjukat danga may booy wax dangay def ni yaay fa ni diw ma damay cité diw laa diw nangam mhm. mais junju mhm. faa junju dafa yomb mhm. wax nangam dina am loolu dafa yomb dangay cité nga ne diw nangam loolu mooy xam-xam mais tant que tamit sa biir wax yaa ngi ni situation réew mi yow yaa koy réglé ci ban anam nga ko mën a réglé. comme nan. Eh, lan la boobu ma réglé tey boo doon dem ci politique bi dem ci làmb bi njëkkee ci politique bi tey boo doon réglé looy réglé. dañu war a réglé bari na. comme nan. parce que Ousmane Sonko. Mm-hmm. man li ma à chaque fois sama yaay moo ma tënk naa ma bul di wax may noppi mais Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne doole lañ ko jaay. ba pare xale yi ndeysaan jeunes yi moo bëgg Sonko mais amuñu mag ñu leen jàppale mag ñu waroon wax yëpp tëj nañ seen génne kenn ñemewul amuñu fiti wax Serigne Touba li tax yàlla bëgg ko li tax mu jëfal yàlla ba yàlla nangul ko maanaam fitam njàmbaarteem nangoom mm-hmm. nee na Serigne Touba rek mooy taxaw wax bu dëgg bu nit du dégg des ñëpp dañuy rasu problème mu Sonko foofu la toll nit la mais nee na donte dañ lay rey waxal dëgg te yàlla rek tax man ku dul yàlla ragalu ma la barke Serigne Touba te lu ma wax dama koy maîtriser. Mhm. ñëpp xam nañ ne Sonko ay mbiram affaire politique la ak jaay ko doole état moo neex te xeexal état moo neex te xeexal mais à chaque fois nee na dëgg la yàlla bëgg te yàlla day àtte dëgg mu yéex ak mu gaaw mhm. Sonko lu tax yàlla def ko ci xolu ndaw yi. loolu yàlla la lu Sonko liggéey loolu yàlla moo ko may Sonko te ku dëggu la ku jub la xamuñu ko de mais dama lay wax sa noon bu la jàppee bëgg la tiiñal pour yàq la ay at munu am ci benn preuve bu leer kon kooku jar na leen preuve gis nga ñoom ñi nekk ci kaw ñëpp di wax buñ leen jàppoon te visite leen alalu askan bépp lañ sàcc maa ko wax tey xoolal ni ñuy dundee kii day bëgg mille francs mu koy teg ki bëgg téeméer mu koy teg ay milliards nekk si réew ni gas ko suuf pour xalaatee lu la neex defal àdduna bi mu yéex mu gaaw ñëppay dee man dee day parce que yàgg yàgg damay dee mais booy dee deel si dëgg man wax jour faraluma kenn mun dëgg laay wax mais dama koy teg ci yar ak teggin Ousmane dañ koo jaay dugal. kon yow si baat nañ ko génne. dama ne la du raw loolu laa mën def te ñaari mbir day xeeñ ma ne la ma dama ne la li may wax ma waxee sama sabar may waxee baatin mhm. gis nga si yoon avant Ousmane Sonko di tënk avant muy génn Macky Sall bu jugoon Karim Wade moo war a doon avant Sonko di génn. mais Karim moom dafa ragal. Mhm. politicien dafa am fit dafa ñeme nag sax mhm. mais si yoon Karim Wade moo waroon a toogal. toogal naa fi ma ne élection deux mille vingt kii falu maa ngay fal gars yëpp di ma laaj loolu lu tax nga teew lu tax parce que am na ku ma doon ñaanal. mais danga ko bàyyi. waaw danga ko bàyyi parce que dafa war ma war dafa war tey suba ñëpp folle. jugoon na biddoom tàkkoon na ba ñëpp naroon ko def président mais maa ko folliwaat. ndey tey instant bi am nga koo falaat pour 2024 bu nag mais mënoo ñu xam dama la benn mhm. bi toog mhm. bul moytuwul laax de damay wax lu leer mhm. suñ moytuwul ñun sénégalais bu moytuwul dinaa fi gisaat mandat deux ans du ma la leer rek yéen journaliste yi dañu ne mën a yóbbu yóbbu jàmm man dama lay wax lu leer mhm. dama ne la suñ muy tuul man maa gis man man deux ans war élection bu am muy tuul laa la élection bu am faa bi dañ ñëpp lan moom gis nga sarax dafa am solo ak sëriñ bu bëri baat ak sàll coono ñaanalu ko ay vainqueur ñoo ko ñaanal xam nga vainqueur mm-hmm. Sonko buñ koy denc yëngaluñ de mm-hmm. xale yëpp lañ tëj seen génne askan bi Sénégal lañ tëj seen génne li ma wax baatin laa koy gisee mm-hmm. kon bu ne si senegal fu ne rey nañ fa ay nag fu ne tur nañ fa ay del ma toog yi fi lan laay toog di ko gis Sonko am na sarax bu mu war a def ay nag fukki nag ak ñaar ak benn kilo sarax bi ba tey génn te ba ma ko déclaré yàgg na. Mhm. xam nga politique dafa salte ba pare sensible. Mhm. moo tax loo si wax nay loo maîtriser loo xam lu la leer. Mhm. te li may wax nii fu leer laa ko teg. fi ñu toog nii. ak Sall moom deful ci boppam sax ni doonatul président. dama ko ginnaaw bi nga lijjantee politique wax am solo ñu yëpp côté làmb ci tey boo xoolee démb combat bi mujjee yow ko gis ni am na foo gis ne mbere ay xale yu amul dañ fay nekk loolu la ci mystiquement laa ko wax sa xale ngeen ko xale ngeen ko waaye fii olof Ndiaye ne malaat ko bu a am nga malaat te yàlla rek mooy ki nga xam ne moo man ñëpp melu nit yaay faal mi toog manul ñëpp de am na sëriñ su ma gën a ay fuuf man ma fuuf mais am na sëriñ yoo xam ne tamit maa leen man loo gis su nekk manante la bu na yow rek yaa man yàlla rek moo man maa waxaat si benn affaire Mor Sall ba ma émission di ko wax samay déclaration am mat na six mois mm-hmm. bii ma lay waxaat nañ ko bind denc ko gis nga courant bi dina delluwaat Pikine si Eumeu Sène benn ñaar dina demaat ci Tapha Tine da denc li ma lay wax Eumeu Sène dina jël jiwaat lu waat Tapha Tine dina ko jël ñoom ñaar ko duma la ko wax day yomb lépp dama ko salfaañe fii. Boy Niang bi. Mhm. bi. dégg nga. Boy Niang Modou Lo. Boy Niang Modou Lo. su ma nekkoon Modou Lo parce que combat boobu. Mhm. buñ ko njëkkee cité dama gis Modou Lo ñu jàpp ko ci woon ci gàllaaj bu bon buñ ko njëkkee jàpp ba bëreegul. Mhm. daanaka Modou Lo war woon a jël kii. benn benn benn question la mooy avenir Ama Baldé après bu jugee ba ginnaaw bi mu amee defet bu ko Modou Lo daane avenir Ama Baldé nga Ama nekk futur ci yoon bu baax waaw nekk ci yoon bu baax. jamono ji ñu toll na defar waat làmb yi ci kanamam yëpp mën naa baax mais faaw lañ ko def ñu dindi ko leer laa lay Ama Baldé dañ ko def faaw ñu ko. mais est-ce que instant bii Modou Lo pare na ko dindi parce que amatu ci moom moo tax na ko dindi rek li mu ko def parce que jeex na jeex na te saa Touba mi njëm bu na dem mu def ay ñaan ci boppam sëriñ dem ñaan lu juwaat saa Touba jàmbaar nga waaye demal nga ñaan lu juwaat ndax gaa yaa sa kaw dañ la cité de trop na dem defaat gàllaaj ci boppam. bul ñaanal nit rek ba fàtte sa bopp. Mhm. kon yéen seen xabi seen bi da ngeen di laalante des fois. man moom laaluma kenn aw ma si kenn soxla man mosuma leen pour sëriñ ñaan diw dama koy laal wala dama koy yàqal déedéet wala may salteel seetu nit man sëriñ du ma sa seet du ma sa ñaan dama naan la jàmbaar nga ndax ñoo bokk liggéey man faa nekk may gis nii du ma xas benn doomu aadama. du ma tuutal benn parce que maa ngi xalaat ëllëg mën nañoo xamante suba man nga maa xam ma nga ñëw sama kër su boobaa damay am gàcce ndax xasoon naa la boo wëree si internet bi mosoo gis yaay Fall xas doomu aadama moo dugg samay laaj ma naan ma commentaire lu négatif baal que man du ma wax nit lu ñaaw doomu aadama looy génne ci sa bopp danga kay natt ci sa yaram ba pare nga soo ko wax doomu jàmbur maanaam loo bëggul ku la ko wax bul ko wax nit Mhm. wax bu ñaaw moo baaxul. Mhm. mais yooyu des fois est-ce laal yaay sax. ku ma laal baal naa waaye ku ma tooñ ma ma gis la sa bët ak bët. jumboore dafa toog seen sit bi ma waxee saraxu kii bi moom mu wax mu ne maaraan na si la gis muy wax ak beneen sëriñu si tewaat mu ne ñooñu la gis muy wax dara dina teew te ñëwagul. Mhm. ma seetaan ko maa ngi ko wax Samba ma seetaan ko man ko yaag yaag jumboo dinañ bëggante maa moom muy bi ma waxee sarabu Sonko mu weddi fii laa génn sama bunt ko jàkkaarloo ko moom jumboo woo yaay baale man ko yow man ma naa man ko yow dañ laa invité nga ne yow xamoo ma man jumboo da nga ne xamoo ma man na xam naa la waaye fi ngay def say programme di say million ko jox nit ñi xam nga li bolo en grand mënoo yàlla nattoo ko mu ànd ak ñetti xaritam fii lañ toog ñoom ñëpp ko def ñun ñee ñoom ñëpp laa seetal te lu ma leen wax waaw la wax déet amul ma neexoon salle bi ñu toog fii ñëpp ma seetal leen te lu ma wax kii du ma ko wax kii te lu ma la wax waaw nga wax déedéet amul man damaa mën yàlla rek moo mën mais yàllaa ma mën mu koy nangu soo ma ko bañalee da ngay sonal sa bopp nee naa leen réew mi li ci des barki sëñ Tuubaa su ma deewul man loo toog fi léegi kenn ku di yaay Fatou chaque jour ma répété damaa toog ci lu wóor li may def su ma ko mënutoon man maa si njëkk a effacé wu ban sens la ma amal may toog di nax sama bopp mhm. ak sëriñ boo xam ne dangay ngay teg di war def émission naan waxal lii lii laay wax defal lii nekkuma si yooyu man du ma sëriñu dóor katu maat mhm. nee naa leen kuy laam-laamee sama xam-xam ñëwal sama kër man damaa def def